wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baadahu sayidna mawlana muhammadin makin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi baaxoo ànd ak Tawfekh Production ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ba tey ñu ngi fii ci Masalikul Jinaan di topp xew-xew bu mag bii nga xam ne ndama lislaam lu rëy li nga xam ne moom la Serigne Touba Xaadimu Rasuul am te dañuy wax ne amati ko fii ci ci ci ci Sénégal adduna bi ñëpp di ko feetee damay wax ne lii ndamal lislaam la lii du ndam loo xam ne euh, dañuy wax ne yoonu murit rek moo ko jagoo waaye dañuy wax ne lislaam moom moo amate ndam kon nag événement bi dañ koy topp rek euh, di fi ñëw di dalal borom xam-xam yi ak mbokki talibé yi ñi nga xam ne ñëpp dañuy daje ñoom fii te ñuy yëngu ci yoonu sëriñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi fii ci Masalikul Jinaan Euh, jàkkaarloo ku baax sëriñ Modou Mboup di borom xam-xam di nitu culture di koo xam ne ñëpp xam nañ ko ci TFM religieux yaakaar naa duñ ko présenté waa Tawfekh Production ñu fas yéene ko laaj nag ndamal Serigne Touba lu rëy li nga xam ne dañuy wax ne dafa bokk rek ci programme yi Serigne Touba yi nga xam ne daa sotti ba noppi talabta rasulallahi li fawqa matlabi muy wax joo xam ne min allahi rabbi war raja lam yu xayya bi wax na lim sàkku ci yonente bi alayhi salatu wasalaam lam doon sàkku yonent bi daf koo jox lu kawe njortam lii de leneen ndam loo xam ne lislaam moo ko amati ñu dee laaj sëñ Modou ana ban kaddu ana yan kaddu nga ci sànni. rabbi israh li sadri wa yassir li al amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu euh, mbokki téléspectateurs yi yi nga xam ni yéenay seetaan euh, seen site bu mag bii nga xam ni tabaarakallahu ci euh, lu baax rek ci lay dox ñu ngi leen di ziyaara bu baax waaye di nuyu euh, borom xam-xam xam ngeen ni euh, moom mi may defal interview yi daa baax rek waaye man mi maa waroon a téye micro bi defal ko interview di ko laaj waaye ndeysaan ndax day borom xam-xam ñu ngi am mbégte bu baax ci fii ñu taxaw tey di Massalikul Jinaan nga xam ni liggéey la boo xam ni dafa doore woon ci Serigne Saliou moom Seexul Xadiim waaye ci loola lépp Cheikh Mouhamadul Mountakha mii nga xam ni tey mooy xalifa Serigne Touba ndeysaan liggéey bi nag yàgg a jaar ci loxoom ah gannaaw Serigne Saliou bi mu fi bàyyi ko Cheikh Modou Lamine Bara mi nga xam ni mu njëkk a toog ci ah, sët ndeysaan moom it wéyali liggéey bi joxat Cheikh Mouhamadul Mountakha ni ko ndeysaan moom it ah, mu mu mu mu ah, liggéey bi ba ni mu fi jógee Cheikh Sidil Mokhtar moom it ñëwaat jox ko Cheikh Mouhamadul taxa waaye ndeysaan gis ngeen. li yàlla di def ak ndam li nga ma laaj ndax ndam loolu yàlla da ko fay mu tax xam nga euh, sëriñ bi sëñ Gade euh, lu toll ni jumaay Masalikul Jinaan euh, liggéey bi ban ko tàmbalee ñu jox la ko nga di ko liggéey ba ni mu sottee nga xam ni ñaari guddi Ndakaar yi sëñ Touba ñëwoon rek boo ko xalaatee rek ak buñ la ko nettalee rek sa àdduna tukki ndax bi ñuy dugal sëñ ci kan jël Jóob ci néeg boobu nga xam ni xat na xat goo xam ni bu mu duggee tab wax nañu ni Ah, bi mu tegee tànkam rek rabb bi moo sar génn ci tànk bi nee na keroog mënut a julli naxi tartar suratul baqara ak ali imran la fa jàng. waaw euh, suratul baqara ak ali imran laal na fu doyoo doy doy doy waar ndax dafa mel ne loolu day dëggal bayit wi nga xam ne yaakaar naa fan yii yëpp koy xool dafay feeñ. dafay euh, feeñ euh, muy euh, bayit woo xam ne fan yii yëpp ñu ngi koy wax wajaxtu lil muntaqa wajaxtu fi ndakaaru dikran bi xat kub kibal makkaaru muy bayit woo xam ne day tegtale sëriñ bi bi mu ñëw fii ci Dakar yonente bi alayhi salaatu salaam la àndal waaye nag boole ko ak di tudd yàlla mu tudd barab bañ ko tàbbaloon barab boobu yaakaar biñ ko fa tàbbalee Ali Baqara ak Ali Imran nga wax waaw tartar yi Euh, sëriñ bi moom daal ci dimension spiritualité euh, spiritualité ni ñu koy jàngatee euh, yow ana yan kàddu nga ci mën a jox fiñ ko dugal ni mu tare waaye bi mu taree xam nga nekk na ci daruur yi mënoon naa noppalu waaye mu song Baqara ak Ali Imran bi mu mënta julli. maanaam loolu day day day wane jaayante gi nga xam ni jaayante woon na ko boromam ni ko ni ko ni ni ko ruugi ruugi de ruugi de man moomu ma ko mhm. waaye waaye jom ak fit wi. Euh, mën naa dékku lu ne moo tax moo tax moo tax loolu mu jaayante woon nag ak ak ak yi nga xam ni wax nañu li mu sóoratul ba xarala nga xam ni tabaarakallahu bi nu tegee nattu yi Serigne Touba jël nattu yi kon moom luñ ko mën a teg ci nattu rek moom mënatul a den gannaaw mënatul a mënatul a onk bu fekkoon sax weñ wu doon naaw ba dal ci jëmmam waratu ko faxas kon keroog bi mu tabbi ci néeg bi ba ba xew ah bu defoon rek loo xam ni ah maanaam dara ci li ko yàlla teg ci ay nattu yëg na ko kon boobaa liggéey bi mën na yàqu. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon yaakaar naa bu fekkoon ne sëriñ bi nee na on oh, dafa mel ne rek minu sarallahu ka xaysun taxat abadan kamalahu xaadama yahwahu aw taara lim jaayante ak yonente bi alayhi salatu wasalaam gestu bokku ci ne on oh, bokku ci foo ma jëmee yaakaar naa bi muy yégee ci gaal ka ko fekk ne ko gamoo nga jëm sax ci la yégee ne moom gamoo la jëm waaye xamutoon sax fu mu jëm kon kooku mooy cheikhul xadim xadimu rasul yàlla ko suñu borom fayal kon xam naa sëñ Modou waxtu julli wi moo taxaw xam naa ne dañ koy dogani foofu ne yow yaakaar naa jàllale ak yow waxtaan euh, xol xol day sedd te dañuy yëg ne muridu sëñ Tuubaa pire moom lañ nii jàkkaarloo lii sëñ Mourtada jërëjëf jazakallahu xayran waaw mu jox ko ay kàddu mu tëj maanaam fi may tëjee xam nga sëriñ bi dafa am lu ñu wax ni si si ce n'était pas les fils d'Anam je ne passerai pas une seule nuit sur terre ah, ah. sëñ Tuubaa daf ne woon bu du woon ñëw àdduna ba fi def génn guddi kon nag dimbali nu ak jëriñu rek taxoon seriñ Serigne Touba wàcc 1927 ci la fi Serigne Touba jóge woon mhm. waaye le 27 septembre mhm. ci la Cheikh Mouhamadul Mountakha borom mbég mi ak taar bi mhm. ki donnu Cheikh Mouhamadul Bassir donnu seriñ Touba tey jiite Touba jiite Njaareem jiite Poroxaan léegi nag naqar woowu Cheikh Ahmadou Bamba amee woon ci néeg ba tey nag mbégte lañ ko ko fayee te ki ki war ubbi nag mbégte mi mooy ki doon borom mbégte di Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir jërëjëf jërëjëf jërëjëf xataan ah, say sammaytani xataan bi abdikal qadim ah, yaa man yaquudu li bos bisran ya duum yaakaar naa ah, waxtaan wi fi mu fi mu tëjoo dafa tolloo ak waxtu julli waaye kon danañu xuus gën dox bu baax baax ndax fi nga tàmbalee dafa mel ne yëf yi daa tàmbalee ibbeeku waxtu wi daal di ñëw gaar sëñ Mortada kon Tawfekh Production mu ngi sant bu baax a baax sëñ Modou Mboup di la sant ñaan suñu borom yokk xam-xam